وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنا بنو سنت يا الله سنبرم سبحانه وتعالى جلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم ñoy leen di nuyu di leen ndokkel ci bis bu maglu tedd bi nga xamne mom dañu jublu niki suba di ñaan suñu Euh, ni ñu ko baaxoo defee euh, plateau yi nga xam ne moom la ñuy waxtaane di gàttandoo bis boobu bis bu tedd boobu te daira rawdu rayahin di ko amal di ko taxawal ngir dundal ak a yaatal njàngaleem Serigne Touba radiallahu anhu ci jataay yooyu ci la ñu nekk ñu am mbégte dalal borom xam-xam bu mag di gëstukat di jàngalekat di yarekat muy Serigne Alhaaji Ndiaye Cheikh dindi ñu xam ko bu baax a baax ñu gën koo miñ ci Serigne Alhaaji Ndiaye Cheikh dindi Serigne Daara muy jàngalekat di yarekat moom la ñu dalal mu fas yéene waxtaan ak ñun ci tomb bu ama am solo muy tomb Cheikhul Xadim wa wixdatul muslimin muy Serigne Touba ak bennoo gum benn la woon julit ni ak woote gi mu woote ci ñu benneel julit ni loolu la fas yéene waxtaane muy tomb bu am solo di tomb boo xam ne jar lool ñu waxtaane ko ci jamono ju nekk waaye rawatina ci jamono ji nga xam ne fu nekk nit bàyyikoo na fa ci këri diine yi fu nekk nit bàyyikoo na fa ci àdduna bi ngir ñëw sant la si Serigne tubaa ci bis bi nga xam ne mooy bisu màggal euh, ci noonu ñu Serigne Alhaji Ndiaye borom xam-xam la ni ma ko waxee léegi gëstukat la jàngalekat la yarekat la yaakaar naa thème bi ñu ko jox mooy dana nekk temam ndax gëstukat la te euh, jàngalekat la teg ci te miin na bu baax a baax a baax yeneen jëflante yi nga xam ne ñu ngi koy jëflante yeneen këri diine kon Serigne Touba woote ko mu woote woon ci benn lu jullit ñi loolu mooy thème bi nga xam ne moom la fas yéene waxtaan ngir njëkkanteeg waxtu wi dañ koy jox mu daal di dugg ci biir waxtaan wi incha allahu taala kon Serigne Alhaji Ndiaye bismillah. asalaamaaleykum wa bi nga xam ne moom la wax léegi muy daayira Rawdu Rayaahiin muy mbooloo mi nga xam ne ñoo yëngu ci lu jëm ci wàllu xam-xam féeti na ci seenum liggéey ci tasaare njàngaleem Cheikhul Khadim radiyallahu anhu màggal gi ñu yore ci lépp jëm ci wàllu culture ki nekk ci boobu di sëriñ Ahmadul Badawi mu Cheikh Abdul Fadal ak mboolem kilifa yi mu seq sëriñ Mbàkke Abdul Rahmaan jiite mboolem yi nga xam ne ñoo yor wàllu culture tomb bii nga wax tomb bu am solo la bu yitteel la bu mat di waxtaane jamono ji nekk bu mat di leeral la ndax dellu siwaat ak delloo siwaat njàngaleem Cheikh al Xadim radiyallahu anhu jamono ju nekk war naa yitteel nit ñi jamono ju nekk waaye rawat na jamono ji jamono ji nga xam ne xel yépp a ngi ci moom xol yépp mi ngi ci moom boo ci leeralee am njàngaleem fesal ko ci danañ ko mën a taatal danañ ko mën a déglu ak si nopp yi taatan ko ak ci xol yi fas yéene koo jëfe Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu dafa ñëwoon ngir yeesal dafa ñëwoon ngir yeesal lislaam ba tax na lépp loo xam ne principe bi lislaam la sëriñ bi daawul def lu may dëggal loole ak dooreel ko ak jëmmal ko ci lislaam nag dafa bokk ci ay jubluwaayam xëttale diggante yi maanaam frontière yi nekk ci euh, diggante yi mu benn la ko moo xam frontière xeet bu mu mën a doon moo xam ci wàllu xeet la lislaam day dog frontière yooyu benn leen ci pas-pas muy gëm borom bi subhaanahu wa moo xam ci ay der la yu bokkul wala ay làmmiñ yu bokkul wala seen rang social dafa dañoo sore ci misaal koo xam ne ku am nga ak ku amul ku am doole nga ak ku amul doole borom daraja nga ak ku néew daraja yi ñëpp yéen bokk benn wàccuwaay lislaam leen boole ci pas-pas bu dee frontière yi muy diggante réew ak réew continent yi moo xam amerique Asie Europe Afrique ak réew ak réew li dox diggante seeni diggante lislaam day xëtt diggante yooyee benn la jullit ñi Cheikh al Xadim radiyallahu anhu kon bu dee dafa ñëw ngir yeesal lislaam ca mbokk ci li tax a jug lislaam benn la jullit ak lépp lu leen mën a wuutale mu mu wuute yooyee benn la leen ci pas-pas Sëriñ Tuubaa radiyallahu mu liggéey ci benn la jullit ñooñee liggéey ak wooteem moom jullit ñëpp ci bokk yam jullit ñëpp ñoo ci bokk yam ñun ñooy wax tariixa ñun ñoo naan tariixa murit ñun ñoo koy wax waaye Serigne Touba moom xamul tariixa Serigne Touba amul tariixa Serigne Touba li mu jàngale dund ko yare woon ci amul ay ay xodóot amul ay limite ba ko tubaab bi laajee laaj yu bari ya bokkoon na ci laaj bu mu ko laajoon ñan ñoo bokk ci yow mu leeraloon ne képp ku naan ashhadu laa ilaaha illallah واشهد ان محمد رسول الله فما دي نيك تي مان لا تي مان لا بوك لول موم موي موي الاسلام الاسلام ان من مؤمنون اخوه لا واخ فاصلحوا بين اخويكم الايمان موي بن بوم بوي لكل جولين ني الايمان بالله موي بن بوم موي گم يالا موي لكل جولين ني كي خاص بوكال جاب تي بوم غوغو لو سين ران سوري سوري يينا بوك تي لن لو نين تي لو نين موي بوم جي مو مو يتين كو باي بوم جي نك موي اموتول باس باس الاسلام دو ابيريت donte yéen a bokk ndey ak bàyyi sa mbokk innama ci ñi boo jàng grammaire arab naxwu adaatu xasr la day takk dana ñii képp la wax maanaam ñii say mbokk yi mooy mooy julit yi sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu loolu la ñu jàngal danañu woon wa ahbibil mumina lil iman wal tubghidil kafira lil kufran ولو أتى إليك بالجناية ذاك وذا بالمال daa bil Sëriñ Tuubaa nee na ki xas doon ab jullit nee na nit ki boo koy xool néewu la nga xool ko ba xam am murid la am déedéet déedéet waxu la xool ko ba xam yéen a bokk kër bu ngeen di siyaare déedéet waxu la xool ko ba xam yéen a bokk sëriñ bu ngeen di siyaare Sëriñ Tuubaa xoolawul loolu lan la la xooloo ci nit ki ndax ab jullit la wala déet nee na bu xasee nekk ab jullit donte daf lay tooñ guddi ak bëccëg di la def lu naqari di la ko wax yow sañoo def lu may bëgg ko su nga too ko bañ de da nga ko war a bëgg su nga too ko bañ nee na waaye yéefar bii nag moom bu la doon jox un milliard par jour da nga ko war a bañ sañoo koo bëgg bind boobu nag dañ xool ba xam ndax ñun ko ñu ngi ko jëfe wala déet da ngay gis ci misaal nit ñi leen tàqale mooy tarixa yi kii murit la kii tijaan la kii xaadir la kii nangam ku nekk def sa moroom wujj ànd toog sa moroom li nga waroon jàpp sa mbokkum jullit jàppatoo ko ngir tarixa bu ngeen ñàkk bokk ca wet ga nga naan sama xaritu nangam bi ca kooku du ab jullit wax nationalité boo xam ne du ab jullit nangoo xaritoo ak kooku man sama xaritu américain bi sama xaritu français bi sama xaritu italien bi ca fekk ñoo leen a jàpp ay xarit gëm leen jàpp ko ñooñu duñ ay jullit nga nangu leen xaritoo ba noppi sa mbokk mii di am murit nga ne tijaan laa duma ànd ak moom sa mbokk mii di tijaan nga ne murit laa duma ànd ak moom loolu bokkut ak njàngale Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa xamul loolu kon li war a leer moom mooy kon ab jullit boo xasee ne ko jël Sëriñ Tuubaa leen moom da nga ko war a bëgg ki nga bëgg nag day am ay ay mbir yu dox seen diggante luy màndargaal foo tollu bëgg ka mooy faw nga yéene ko jàmm faaw nga fexe jamono ju nekk sa njariñ di jóge ci moom jëm ci moom jëm ci moom jóge ci jëm ci moom faaw ngay nang ngay nangoo yanu ay lorom supporté lépp lu mu la mën a def ci ay coono ak métti ak tiis nga nang koo supporté nang koo muñal nang koo jéggal nangoo yaatal sa dënn ci ci ci kanamam yooyu ay mandarga la yoo xam ne dana mandargaal ne kii kat bëgg nga kon loolu la ñu Sëriñ Tuubaa radiyallaahu loolu la ñu jàpp beneen bu am solo boo xam ne day mandargaal ba léegi ci loolu moy li Sëriñ Tuubaa ne won wala tu'adu man raaytum fahu yuxruj la ilaha illallah allah touba Tuubaa radiyallaahu nee ku ngeen gis gémmiñam gi di wax baatu la ilaha illallah koku na ngeen ko bëgg bu leen ko bañ xol xol prince yi mu yi mu tëral xoola àdduna bi tay ni mu ni mu lajé ci affaire yi sunnit ak ay chiite wa shi'a ak ahlu sunna xoola tey àdduna bi ni mu lajé ci affaire ahlu ahlu sunna ahlu tasawuf àdduna mi ni muy lëjee ci wàllu ay ngëm-ngëm ay ay ay ay wuute yu yu yu sew yu parallèle yoo xam ne mi ngi aju ci déggiinu maanaam yi wala ñàkk bokk école yi ngeen jàng tax muy tàqale jullit ñi bu ñu déggee njàngaleem Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu nii boobaa tàqale googu du am tàqale ko googu boobaa du am day day day solutionné day réglé day day defar jafe-jafe yi nga xam ne jullit yi xaali yéen ñu ngi koy dund ca loolu moo war ab julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne digal nañ ma may xeex ak yéefar yi nee na dañ maa digal ma xeex ak yéefar yi ba ñu wax baati seede yi bu ñu xasee wax baati seede yi nag sañatuñu bu ñu xasee wax baati seede yi sañatuñu yoon sax nee na seen deret seen alal seen der xaram na ci man waaye waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni woon ginnaaw mooy am ñu nekk ci biir kuréelam gi ci biir nit li ay sahaba am ñu nekk ci biir ci seen pas-pas dara baaxu ci di fexel yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg ko rey nekkal fi yéefar di leen jox ay information waxtu nekk yonent bi xam leen waaye ñu lan moo dox diggante ak yonent bi ba yonent bi wu leen ci biir jullit ñi mooy wax nañ baati seede yi yonent bi ne wax xisaabuhum ala allah seen mbir nag yàlla moo koy yor moo koy xisaab kon loolu lañ war a jël teg ko comme nattuwaay waaye ki ab pas-pasam baaxul ndax ci ahlu tasawuf la bokk ki ab pas-pasam baaxul ndax ci kuréel sàngam la bokk yow kan moo la àtteloo mbir yi yow sa yoon nekku ci ginnaaw kii daal ab jullit la moom wax na li tax nekk dugg ci biir jullit ñi ña ko waxoon ci jamono yoon sax nekkoon ay ay ay ay naafiq yàlla di leen di ko wax naan ko wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan wala taqum ala qabri ne innahum kafaru yàlla moo ne ko ñii ñii gëmuñu waaye la nga xam ne comme aw tëralin la lim sañul moom mooy kuy wax la laa ilaha illallah wax baati seede yi suñu koore yi Sëriñ Tuubaa yi nag loolu la ñu jàngal dañu koy wax kuy wax baati seede yi na ngeen ko bëgg waaye bu leen ko bañ benn yoon jullit bu ñu yëgee àndandoo googu war a def dox seen diggante jàppaloo googu leen alxuraanul karim diggal nga xam ne ban buñ yaana marsuus lañu maanaam mel ni benn miir miir bi bu doon tey birig bu nekk dafa tegee fële ne man maay man maay ànd mel man képp pour tabax kër gi wala tabax néeg bi wala tabax nangam bi du sotti il faut birig yi yëg ne dañoo war a jàppaloo pour mbir am kon julli ñi loolu la ñu yoon sa waxoon mu loolu lañu alxuraan wax yoon sa waxaat ñu ne jullit ak moromum jullitam dañoo war a mel ni benn jëmm ka mathali jasadin waaxid ida shaka minhu aduwun tadaaxa lahu saa'irul jasadi bi saxi wal xumma bopp bu mettee tànk day tàyyeel ci dox tànk bu mettee làmmiñ day tayal ci wax nopp tayal ci dégg bëñ buy metti cër yëpp dañuy solidarité wane ne ñun dañoo sawarul ndax suñu mbokk mi wax bëñ bokk ci ñun day metti loxo buy metti nopp day day du sawar ci déglu dara tànk du sawar ci dem fenn làmmiñ du sawar ci wax dara biir du sawar ci lekk ndax seen mbokk mi wax loxo day metti yoon sax nee na ñun julli ñi noonu la war a mel noonu la war a suudewoo mel na benn jëm Sénégal gi ñu nekk nag ñàkk dund njàngale yu mel nii mooy yóbbe problème yi nekk Sénégal ñi ngi naan jullit ñi quatre-vingt-seize pour cent la ñu nekk majorité ci kaw ñoo xam ne minorité bi nekk diggante quatre ak cinq pour cent la minorité boobu bu ñu demee ba am ci Sénégal ab cër boo xam ne ñu jullit ñi amuñu ko lan moo ko waral mooy jullit ñi seen ñàkk ànd day wax ne inamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum gee inamal muriiduuna ixwa inamal tijaanoon ixwa inamal xaadiroon ixwa ku nekk jàpp ku nekk beru mooy mooy musiba mi nga xam ne moo dal lislaam ci senegal may faral di wax nag mi ngi mel ne garab bu tegee l'islam mooy dàtt bi mooy garab branche yi mooy tarixa yi ku nekk bu toogee sab car naan ku laal sama car xam ku laal sama car xam ñuy seetaan ñuy ñuy dor ñuy gor dattu garab bi bu garab gi daanoo car yépp ànd daan mooy bari lo xamne boko waxe boo ci alxuraan kenn du la faale boko waxe waxee ci lislaam kenn du la faale boko waxe ci islam directement kenn du la faale mais bo waxe ci keur sàngam nak ñu song la serigne touba nak mom nekku doon fofu mom lim nekkon moy nadafatuhu kulli min allah tahharat wa sunnatuhu insha rabbi ubay kon jema jéem a dil siwaat ci wat jangale mom jël jéem ko jariño baxna na lool ci jamono ju nek waye rawat na nak jamono ji nga xamne ci lañu nek bismillah jeuf sëñ aladi Euh, lu am solo la wax muy bennoo googu ci lislaam ak ni ko Serigne Touba radiyallaahu anhu doon wootee kon loolu jullit ñëpp war nañ ci bàyyi xel rawatina ñi nga xam ne ñooy taalibey Serigne Touba euh, wax na lu am solo euh, muy diggante bennoo surtout ñi nga xam ne ñooy xaajale jàpp ni ñii ñoo féete fii ñii ñoo féete fii mu wane ne Serigne Touba amoon na beneen gis gis gisiin bu bokkut ak bokk gisiinu ñëpp day mel ne tëjjit bi mu doon def yemalewu ko woon ci ay nit rek waaye lislaam la doon defaral te lislaam moo boole ñëpp ñaareelu laaj bi lim euh, mooy bennoo kooku nag nu mu ko dundee ci biir réew mi ak kilifa yi mu fi nekkaloon yi fi nekkaloon nu mu dundee ndax li fi wax léegi day mel ne Sëñ Tuubaa da doon théoriser nit ñi di leen wan euh, ay nazariyaat di leen wan dee leen def nangam dee leen waaye nag dund ko moom ci boppam ndax moom lu def théorie rek dan dan dan dana tax bi yex ba nit gis ko kon kon kon pratique boobu Sëñ Tuubaa doon ci biir réew mi ñan doon doon jëflante ak ñoom Seexna al Xadim radiyallahu anhu loolu mu digle moom la jëfe moom la dundal ba ñu fi ji amul benn taal taalub lislaam bu nekk ci biir réew mi loolu la sëriñ bi seet na ko jokk ak borom taal ba ñeer taal ba jonjoo ak ñoom fas ko lëri gu dëgër seen diggante ñenn ñi sax lu jiitu muy am wérdul maqum wérdu na wérdu tijaan wérdu na wérdu xaadar wérdu na wérdu saadali yépp tubaab Tuubaa radiyallaahu anhu jëfandikoo na ko ay wérdu bi nga xamee ne dem na ba am wérdul maqus it téewul mu wane ne maanaam taxul mu ne xam nga mënoon na ne sama wérdu wii kat mooy wérdu wane nekku fi kon ak tàqale ko dana dana juddu ñàkk nawlante dana juddu xeeb dana juddu waaye waxul loolu dane woon fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaxiida sawaun intama ila aljilaani aw intama li ahmad tijaani aw li siwahuma min al aqtaabi id kulluhum qataan ala sawaabi suñ tubaab nee na wird yi daal maa ngi leen xamal ne bépp wird wu nit ci jël moo xam wird wu Cheikh Ahmad Tidiane Chérif Cheikh Abdoul Qadir Jilani wala ku dul ñoom ci ja gaa yi yàlla yi wu ci waaye jël topp ko jox ko àqam jox ko yitte bañ a juyoo ak moom da àgg ci borom bi subhaanahu wa taala muy am ngërëmul yàlla ndax ñun ñëpp ñu ngi ci aw yoon ñun ñëpp ñu ngi ci aw yoon kon loolu di màndargaal benn léegi yëmu ca waaye bi mu yoree wérdul maqoos ci boppam it téewul daana joxe daana joxe wérdu tijaan am ñun joxoon wérdu qaadir ñoo xam ne dañoo wéy mu jox leen digaloon ñu wéel ko am ñun joxoon wérdu qaadir ci boppam ci jamonoom niñ daan toogee daan def ay xalaqaat di jàng xaside ci kër Serigne Touba radiyallahu anhu noonu leen daan lale mbalaani wasifa noonu la xaadir yi masa mën a toogee fële di def seen zikkar ñeneen ak ñeneen mën a nekk fële di di jàng seenu njàng ci lépp sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu xajoo ko mooy lan mooy xam ne ñi ñëpp jaamu yàlla lañ ndax dafa nanguloon ñëpp la leen yàlla jox cër bi ko yàlla cër bi cër bu mag bu rëy waaye téewul mu mu nangul bépp jaam bu yàlla jox cër mu nangul la ab ab cëram dundal gi loolu it moo war loon diggante mag ñi fi nekk doon ci biir yi mi ñëpp rafet mboolem ñi nekkaloon di ay kilifa diine ci biir réew mi Sëriñ Tuubaa jokk na seen diggante sa diggante ak ñoom seen diggante jokk na ko jokkin wu rafet wu jéggi dayoo woo xam ne ñoom ñëpp nanguloon nañ ko it ñoom it ak mbaaxam ak cër bi ko yàlla jox ndax daf doon rax rattaxal diggante bi daan ziyaara ji képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi ñu bari ziyaara fu mu mas a doxe ba jege fenn wala mu digg kenn kilifa bu nekk ci barab sàngam doon da ngaa ci barab bi mu nekk mu jokk sa diggante ak moom loolu la yaroon njabootam gi ñi ko fi mas a wuutu ñëpp ci loolu lañ mas di woote ci lañ mas di nekk ba da ko dale Cheikh Amadou Moustapha ba Sëriñ Saalihu radiyallahu anhu ajmain ci loolu lañ mas a nekk màggal Tuuba dajewukaay la boo xam ne fii ñuy wax ak yéen jëm suba mboolem taali jàng yi ci réew taali jàng yu ci réew mi seeni ndaw danañ nekk fii ngir lan ndax sëriñ bi moom loolu la jàngale loolu la xam loolu la dundoon ak ñoom mooy ay mbokki jullit lañ amul leneen li ci des ay daara la tarixa yi ay daara la yu lay jàngal lislaam waaye lislaam moo am ay ay daara yu lay jàngal lislaam moo tax ma noon fa kullu man xayra ilaahi dallaka wa man ilaaha xayra ilaahi dallaka fa firra innahu adallaka damay faral wax ne bu ne woon inna annahu lu tax misaan arab dam waaye bi mu la xasee tegtal lu dul yàlla rek neen na ku la tegtal lu dul yàlla rek bay ba ngoon ginnaaw ndax kooku moom na nga xam ne réer la moo tax nag jën jën njàngale moomu ak ak mbind moom dund ko dafa jaadu ci ku nekk ci ñun kon noonu la dunde woon moom diggante ak kilifa di nii fi nekk mboolem torox yi fi nekkoon yëpp lépp képp koo xam ne taaru jàngoo nga sa barab waa Tuubaa nangul na la ko lu mën jox sa diggante moom dana ko def ba Sëriñ Alxaaji Muhammad Amin Baara njëkk koo wuutu ci ci sëñ yi ubbi digganteem ak mboolem njaboot bi yëpp rafetal ko rattaxal ko tarixa yëpp def ko ay wàccuwaay non seulement tarixa yi kese ci biir réew mi mais même cirque diplomatie bi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñëpp doon jonjoor ak moom bennoo ak moom dund ak moom li li li ñuy dund ñu bokk muy islam bi bi nga xamee ne jógee na fii sëriñ Sidi Muxtaar xafisahullahu taala wa raa mooy bi mu ñëwee yeesalaat la mu fekkoon ay waajur daan ko def la mu fekkoon magam baax ñu doon ko muy benn la jullit ñi wane ne moom mbokkum jullit moo am dund ko wane ko bu baax a baax loolu kon nag moom la Sëriñ Tuubaa jàngalee moom la ak njabootu dund boo gisee keneen kuy def leneen nag kon mënu ko tekkee doo xam ne loo mën a tekkee waaye jëlewu ko ci daara ji nga xam ne moom mooy daara xam ne ne ci biir réew mi nekkoon doon dafa ak ak kilifay yi diine yoo xam ne bokkuñ benn yoon waaye teew muy jëflante ak ñoom ak ak ak bokk na ci te kaamil boobu nga xam ne moom la yónnee woon moom moom la si Seex Seydi Xaaji Maalik yónnee woon ci moom ak bay jën ci joxalante yëpp yëmale ci woon ci moom rek waaye ci mboolem kilifa diine yëpp doon na jëflante ak ñoom jëflante bu rafet ndax dafa leen doon jàpp ne ñoom ñëpp ñoo bokk fi ñu woote ñoo bokk fu ñu jëm te mooy lislaam te lislaam xamul xeet bi xamul kii fii la bokk mais ñëpp la maase maase bokk loolu tomb bu am am solo la Euh, bi bi bi ñu tëjee rek mooy suñu laaj yi kon murid yi ci boppam ginnaaw woote Serigne tubaab boobu mu woote ci wàllu bennoo ba noppi jëfe ko ci boppam ñun ñi gis ko mag ñim yaroon mu nekk ca ak njabootam bu bu baax gi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon di ko dund nekk ca kon nag murid yi ñoom lan mooy message bi nga xam ne moo ngi leen di bàyyi ñu war a wéyal jàngaleem Serigne Touba ci bennoo boobu euh, loolu yaakaar naa lu am am solo la xalifa bii fi nekk di Cheikh Sidil Mokhtar woote na ci wane ne dañoo war a bennoo delloowaat njàngaleem Serigne Touba moomu kon yow ban message ngay jàllale ci ñi nga xam ne ñooy ay taalibe rawatina ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ñu mën a tënku ci njàngaleem Serigne Touba moom ci bennoo ndax dana bari lu mën a saafara. jërëjëf waaw message bi day doon wax Serigne Touba rek la ñuy jël jàpp ne képp ci ñun koo xam ne Serigne Touba moo si jëwriñ ci toolu islam bii ñu nekk ci la nga wax dëggu sa diggante ak moom. am na benn slogan bu am solo bu ñuy wax ñu ñëpp mooy murit ndigal wax Sëriñ Tuubaa xasee jib xalaat yi keneen warta am bëgg-bëgg keneen ci ñun warta am jéem a jëfe loola rek mooy li nga xam ne moo war ci ñun loola nag ginnaaw nii la ko diglee moom nii la ko diglee nii la ko jàppe ñun amuñu waruñu am gisin damay faral di wax ne léeg nga ne murit gi nangam wala ak taalibe daal ni ma ko gisee mooy mais dëgg-dëgg lan mooy suñu yoon bañ koy gisee ñun amuñ ci gisee lu suñu yoon dañoo war a dellu koy ci borom ne kat nii la ko jàngalee nan ko jàngalee ne noonu lañ ko war a jëfee bu suñu kattan amee matee ci jëfe ko noonu la waree bu suñu yaafus wala suñu doyadi wala suñu bakkan jàpp ñu wala seytaane jàpp ñu ba mënuñ ko jëfe noonu it ñu xam ne ñun ñoo defagul la ñu war waaye wartee faa ngi ne ak guñ ci nag moom jullit ñëpp la bokkoo woon jullit ñëpp la bokkoo kon bépp taalibe boo xam ne yaa ngi wax lu wuute ak loola na nga xam ne yaa ngi wuute Sëriñ Tuubaa yaa ngi wuute li Sëriñ tubaab façon yaa ngi wuute li Sëriñ Tuubaa jàppoon yaa ngi wuute li Sëriñ Tuubaa jàngale woon yaa ngi wuute li Sëriñ Tuubaa doon dund yaakaar naa nag wuuteeg Sëriñ Tuubaa benn murit bëgg ko benn taalibe bëggu ko xam nga euh, ku doon ci ñun xam ne Sëriñ Tuubaa di la wax fi ñu ko teg teguñ fa kenn ni ñu ko jàpp jàppuñ ko kenn ni ñu ko gëmee gëmuñ ko kenn tegtalewul ne wërtu tegtale ci nit ki ne maanaam beneen barab dara néew keneen yurut dara yàlla dafa bari le dafa yaatu le waaye ñun nag sunu naanuwaay bi mu ñu jox tam doy ñu sëkk mooy seen Tuubaa ngeen nangu leen fu nekk nga gëm ne la fa nekk yàllaa ko fa def ak jullit noonu la war a def ab murit noonu la war a mel Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu buy wax li mu wax ci wér yi léegi ku muy tudd mu tudd sama sëriñ nangam sama sëriñ nangam loolu ay teggin la ak ak nangul yàlla ab dogalam wane ne fu ne yàlla dafa nekk yàllaa ko ko def ñun noonu la war a war a mel noonu la ñu war a bennoo day wax ne nag boo gisee képp koo xam ne yaa ngi lu wuute ak loolu da da ngay xat dangay xatal mbir mi muy gën di xat gën a jëm kanam day wax ne da gis koo xam ne da ngeen di daje ci barab ci barab. ci misaal mën naa ko joxe sama sama man kër suñu fànn gi ma dëkk sëriñ Abdul Fatah Cheikh Abdul Fadal sama sëriñ ci misaal ma daja faak nit danaan la ah yow ndeke sama mbokk nga ndeke ndeke sama mbokk nga luy mbokk gi mooy ñoo bokk sëriñ bu ñu seer ba ngay jullit doona goo mbokk ba ngay murit doona goo mbokk ngeen bokk kër suñu fànn doona goo mbokk da ngeen di bokk benn sëriñ bu ngeen di seer nga doo ko mbokk mbokk loolu gën a xat ak ay tàqalikoo lay lay jur du noonu jullit bi foo ko gis sa mbokk la kon gëm-gëm boobu lañ war a am ñun ñëpp war koo jàpp ànd ak nag ku nekk nag da ngay gëm ne dëkk bépp électri électricité bi mi ngi fi dox mi ngi circulé kër yaa ngi am courant waaye nag fil bi jógee ci pot poto bii ñëw ci sa porlet bi moom ngay gën a jàpp nag moom moom moom bu xam nga ne bu daggoon tey ñëpp mën nañu am courant yow doo ko am waaye nag bul jàpp ne yow rek la say làmp leer yow rek la say làmp baaxul déedéet islam noonu la noonu la bëgg Sëriñ Tuubaa noonu la bëggee amaa wuute ak moom nag day mel ne réew mi ñëpp li ma waxoon sant li leen li ñu dal loolu rek moo ñu ko yóbbee ñëw doole jullit ñi ñàkk gi ñu ñàkk a teg fenn tubaab yi it moo xam tubaab yu weex ak yu ñuul yi fi nekk yor réew mi jamono gi nekk ñu liggéey ci loolu gën a jëm kanam jamono gi nekk ñu ngi fexe ba tarixa bu nekk naan maanaam nga xam ne lañ defal dëkk sàngam nañ ñu ko defal dëkk sàngam tëlil nañ leen dëkk sàngam nangam dëkk sàngam nga xam dañuy mujj di wujjalee ñoom loolu moo seen seen mbir la ndax xam nañ ne bu bu jullit ñi àndee musiba am ci ñoom bu jullit àndee yow ne ab jullit piir lañ bëgg boo xam ne nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam lay mel pour mu jiite ñu région yi gouverneur yi jullit sàngam ak sàngam ak sàngam lañ bëgg yooyu bu amee bennoo yooyu bu amee arrangé wu leen moo tax nag ñoom lu ñuy gën a tàqalee rek mu gën a bari ñoom tàqali koo nag la ci yàlla waxoon rek yàlla dafa waxoon ne bu ngeen tàqalikoo seen kàttan dem mm-hmm. bu ngeen tàqalikoo da ngeen échec mm-hmm. ba noppi seen kàttan